daba Marina. nam naa la. ci loo nekk. ci loo nekk. ça ay si jàmm. yaa xëyee nii. gis nga de. naaw mbéy mi rek tey moom damaa kontaan moom. yow kër gi de dara amatu fi li fi bàyyi de taf defoon as néew lépp jeex na. yéen a da ngeen a mën a yàq de. moo tax a jaaxle nii taxaw de xamu woon ne maay. raak moom mun ngeen ko moom raak moom da ngeen koy def. lekk rek la ñuy def fi ñëwee keroog indi fi ravitaillement beeg tay nga bëgg ne lépp nga sax. <laughs> kër gi daa bëri élément di. ana dépense kon dépense am fi dara am fi. ngoone laa xaar di. Ah. ko moo koy joxe kay. yàlla da bëri na sutura wooyi di li muy def nii. yàlla bëri na sutura bàyyi ma joxe dépense rek. comme la man moom tay yaa man yàlla gërëm man mu baax mi man mi nga xam ne lu ma dund doyut. tubaarkàlla Sénégal ma bëgg ma am di terale tey terle waaw tey ma am tey man la yàlla gërëm. yow yaa joxe dépense tey. tey baax ma Fane yaram baax ma. mari naa ko peem. Hmm, boo ñëw bëgg lu jënd nag boo bëggee nekk ay xarit. mun hmm. ah. tafaale sama maam dëgg du neex monsieur Fall mi ci ron guy gi tey daal man la yàlla may. bu soobee yàlla fii ak ajjuma bii di ñëw. ajjuma lépp sotti. Hmm. am déet. ajjuma. dafa yeex. waa ajjuma bu la baaxee ci yow rek baax na ci. ah ajjuma gën ñu ko defoon. àll ba wala alxamis. jeex na loo bëgg yàlla na jàmm. <coughs> man kay xanaa loo bëggul waaye loo bëgg rek <laughs> yàlla na jàmm. ana almaa bi moom. almaa bi mi ngi fi mi ngi ci biir. ah mi ngi ci kër ah. mi fi macha allah. Ah. merci beaucoup ci laaj bi kontaan naa ci. ah almaa yaay papa. waaw waaw ndeysaan. Ah? xam nga rek boo boo bëggee ginaar da ngay bëggaale nen ya ndax omelette a tax <laughs> ah baax na gis nga baa omelette bi du bëri booba gis nga boo moytuwul. Eh. dinaa dal masque <laughs> booy dee damay loxo barke yonente omelette bi baa du am poobar. déedéet. Ah. mukk wala mun def ci tuuti poobar. waaw mag nag boo ko yoree yenn saa yi da nga ko cay sëllax rek xuuxal ko def. <laughs> xoxatal ko barikalla. <laughs> ak a bandi ci mag seetal. te benn benn ñaari doomu benn naari. waaw du ma tëdd naan sax jalang laay def. jalang. man yow laay wër ba timis jot ma xaar ramaas ramaas ma ndax mën naa tëdd biddanti maa lox lu mel nii ngoon na jaay maa jigéen aha ak lay geetaloog te ci kolaa geetal yi la nooy rek yi laa di mooy na ma puus baax hôpital yi war nañ cee waxtaan de mag yi saw lal billaahi dañ leen ci waxtaan naa ko def six heures du jour. Hmm. Mhm. man damaa jom ba mënumaa wax waaye indi rek. dix mille ak kay dama koy jël ndax tey au moins kiy joxe ci kër gi loxo mën a noppal ndax loxo bu yàgg tàllal du bu yàggee day toog. tey yaa jël maa joxe tey yaa nam. waaw waaye xam nga nag laa bëgg maa fi bu mut buy wax. maa bëgg. waaw moom danaa bëgg. loolu dara. mu fi maa joxe maa yor. barkaala bëgg naa la nga laal ma maafe buy wax. yow maafe bu nduróog yow laay def. nga sa tey bi comme teewu maafe. waaw ah, wax ma waxal sama baax baax. dégg lii ma yii baax ma. nga ka ma soog laa baax. baax ma Fall Ndiaga Yaaram waxal rek waxal ma sama sa mbaax dara. Mhm. Fall Ndiaga Yaaram. xale bu pare. Ah, dégg wax amul. dara xaw maa gën a billaay kontaan nekk leen ci li ngeen war a ne ngeen nekk fii man gisuma cin tegu gisuma dara ngeen nekk fi di waxtaan. nit ñi bu dee yow dong cin du tegu wax ko. lan mooy problème bu dee yow rek. cin du tegu wax ko sama barada boobu. marinade ma jot léegi dépense dix mille francs ne naa togg maafe kër gi dara amu fi woon. waxal sama marinade yaa joxe ñaari junni. ñaari junni. dinaa togg maafe. baax nday baay baax baay baax àndandoo. Ah. marinade yi njaay mi jar na de. ma jaar njaay mi nag daal di yàq der xam nga man damay luuma daar lu ma naar. macha liggéey kii nag dafa mus a baax ni nga koy gis nii macha allah des fois ma kale mu dekale ma. te yàlla na sa jàmm yàgg. foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu. looy jaay yàlla na jar yàlla boo lambale ci àdduna. ak sëñ yàlla na leen nit ñi di fekk di ko saxatoo. ak sëñ Fall. waaw yàlla a tàggal. ma man tey ataaya ma defuma dara. bu leen neexee sax bu leen toog. waxal sama baax da ngaa baax ni baax. faa ñu ñu baax ci baax ku wax set mu baax baax jubali baaxee kër baay baax. ama wóor boo lambale. ñàkk baaxul ama wóor yàlla nay jàpp. ak fi réew mi toll. tubaarakàll mhm. ak fi réew mi toll. bu ma wax loolu luuma naar nga may wax luuma naar. luuma naar kon seulement a ngi ci bi nu leen neex marché bi nag marché bi nu leen neex ngeen koy tuddee léegi. tagg leen ma luuma naar kontaan na. kenn doyul ma dolli. moom kay fi toll nii. léegi yow maafe bi. Hmm? teg ko en naa ma dem wax ak euh, sama gars yi ci biti. Hmm. tey man damay terne rek. tey yaay xool yaay buum yaay bummi yaay seef ci kër gi li nga bëgg loolu la ñuy def loo bëggul defuñu. toppal sama ginnaaw di wax. Eh! waxal ma waxal ma dégg nga waxal Ibu. yaa baax. <laughs> Ibu dégg nga. ma ci jox daal. ma la ci daal. waaw loo ah, maa la ko déclenché. Ah, kay ah xam naa fi mu jógee ne man maa la wax ne Mariña moo ma jox ñaari junni pour ma dem marché bu la joxee ñaar kay doo ko paax joo man ak yow. ngay lekk riba. ma la. yow danga koy lekk. ah danga koy lekk. riba ngay waxal. garaawul xaalis moom moom jamono ji mënoo lijjanti xaalis fi muy dugg ak fi muy génn ay yëpp danga koo mën a lijjanti garaawul jox ma ci rek bu loolu yëpp ay doxee. ci dóor rek man ci kanam dinaa ko toj. waaye xamal naa la ñaar bi. njaay mi de temps yi dox na Mariña vingt mille francs. Mariña lu muy jaay. moo man téema jaay. ah ah man kay client ngi nii bu taxaw te moom kay wax ma looy jaay rek yow kaay looy jaay <laughs> doo lambale nii looy jaay eh eh wuy ma wax ma ngay jaay maa ngi fi nekk nag nañ ko. Maïsila lan lay jaay ba nga naan ma looy jaay client nii. benn ay Ibou Dibra ragalal yàlla. kene kene. yow de bul dugg ci njaay mi da ngay lambale de bul jaay de eh! bu dee café ngay wër café amul ci kër gi ñaari junni moo dugg ci kër gi te mari naa ko fi indi bu dee café rek moom baye boo nga muur sa muur say cër moom lañ noonu mu saf ku jóge wum rax bul jaay de kii bul jaay ni fan yi lu ko gisoo may nëbb paaka bi foog ñu paaka lay wër wóorul bi. waaw assassinat bi bari na ci réew mi de. genre yi deen ko moytu. moo tax ma nëbb paaka bi. baax na man ci kanam. maa ngi ci sama bàyyi ci wàññi man gisaa ko moom de. jël sama numéro boo paree ci njaay mi. eh waxuma la loolu doo ma bàyyi ak kii kese ci waañ bi yow xanaa dara dof. dina ko doon def. corona corona coronavirus bi signe yi lan la coronavirus. damaa xam luy problème ni nga def ci suba ci loolu rek. yaa ngi cool. maa ngi te da ngaa belli de. ah yow tamit. lu tax ba du ma belli. lu xew ma biir. peetaf ma peetaf. la tax de damaa ñëw rek fekk ko ci biir kër gi ah, luy def ci saal. ah yóbbu ko ci biir néeg bi. <laughs> ok. ah d'accord boo réew ci biir néeg. ci biir néeg bi. yow yaa ko ci biir néeg. maa jël per taf ko ci biir néeg bi. ok ndax per daa ñëw waxoo ko ful jàpp na nag. jàpp na foogoon da ngay kaf nekk kafoo. foo ne kafu ma loolu ne la toggaañ. buñ dalee ànd ba léegi may soogu dégg mel mu Marina de ma jox ñaari junni yow laa doon xaar sànq ba léegi mu jox ma ñaari junni nee naa togg maa fi. Marina. <laughs> moo ma jox ñaari. lu wànq li dox noonu. moo ma jaaxal. Marina ak ñaari junni. santal. yow mi daan joxe chaque jour boo gisee ku la ci dimbal doo sant yàlla. ah sant kay. moo tax ma jël ko di. ah waaye nag tubaarikàlla kaa wax la borom kër gi dafay ne de. loo nar a togg. maa fi. changé plat. ah nga dëgg. xoolal wax nga dëgg la bëgg. fi nekk nii ay bëgg-bëgg mari naa ne fi newu fi donte moo joxe dépense. muy yomb waaye nag boroom kër gi fi mu nekk nii li mu bëgg mooy couscous te xam nga ni bidon mi ngi fi. laay loolu kay mooy toj. maa bëgg nga dem marché jëndal ma ko kook kook kook bu baax tubaari kàlla boo ñëwee nag ma xat fa seen ni futeeku man tay maay togg añ ndax nag tubaari la duma bàyyi kenn di ma duggal sama waay. bàyyi mën nga nag waaw mën nga xam naa ni mën nga. xam naa ni ku dëddam sa loxo. waaye nag. faw nga ko say mooy dëgg. dama lay jëndee jinjeer nga dëbb ko mu jibbeeg moom. faw nga <laughs> woon ko xëbal la loolu lay xëbal yow it da koy xëbal mu jibbeeg moom. xëbal gi nekk. ah dina neex ma ci ay pomme ba ay fruits daal jëndal fruits yow yow daal na nga jënd fruits boo xamante bu ñëwee fii bu ma ko daj. ndax bu metti. ma eh, eh, eh, oh, ngoog. sa voyage yow. Sénégal. Aéro Sénégal. comment vous allez. ñëw ma ñëw ñu bokk yéen. waaw uy man li ma namm dama ko toggal dama gëj lekk ceeb. yow maa ngi ñëw maa ngi ñëw nga soppeeku nga mais naa la de ci la nekk. mooy rakk yaa ngi doxal. yàlla. def lii tari Fatiha. ci sa jëm. tubaari kàlla yëpp maam yi ko sant sëriñ sëriñ laay barke yonent bi yëpp maam yi ko fi bàyyi di nga ko dem jëli. sàmm na nga sama der bi ma demee. der ba sama der bi ci kër gi. yow fii kenn yàqul sa der man du ma toog di sa mag ñu yàq sa der. dama changé de. Anta Moussa yow. <laughs> yaa gën a yàq. dama changé. changé woo ci àddina. lu tax nam moom waaye nam naa la barke yonent bi dama laa namu. nam naa la namu. mu ne ma dem fële nit yi di la laajte. mu ne ndekete xew nga de ay tuwaari kàlla. <laughs> mi nga laajee noo def noo wax. ma mu fa rek di. bu baax rek sàmmaloo ma sama dar yow it foofu. sàmm naa si deru de euh. naa la. am na salité loo may indi. GP bi mu koy indi lu am bagage bi ma yóbbu woon nii bi ay kii yu ma yóbbante woon moom laa indi. yii sama rakk dina gën a xel li ma la indil comme dañ lay si mariage bi nga nekk nii. Euh. bi robe am na ay talon. talon xoolal gisoo ma nii damaa gën a augmenté sa je fais comme ça je baisse <laughs> tubaarikàlla damaa am ku may jàngal ci biir kër gi. kan kan. Fiona. Fiona. bonjour moo ko yow yaa ngi dugal yaa ngi xale ba léegi ci kër gi yow bàyyeekoon ni ba tey. wuyu ma kaay ma xool nu may jàngalee. kaay kaay. yow Mbaye at yow mayee sa bopp jàmm. waaw bee tax na fi nekk nga naan kaay. waaw tax mi ngi ci kër gi waa léegi léegi lii buur la. lii añam la. ana añu waa kër gi. mi ngi foofu. léegi lu tax bàyyi tax war a mañ. yow Mbaye indil añ bi dama la koy xëppale ana añu <laughs> lu sama yoon ci lii ka man maa dugg ci waañ bi yow boo bëggee añu lii ka da ngay dugg sama bopp. bàyyi tam léegi day ñëw ci kër ñu koy tibbale yaa ngi dugg ci ay biir waaw mais comme am nga droit am loolu noonu man maa ngi ñëw dem lijjanti lii ka moom aussi tamit. ndey xaw naa fee for bët waa ji ah. kër gi nag këru sa këru la teel. ah lii lan la. xam tàllam xam tàllam bi mu gën a leer. li nga bëgg xanaa. ah, ah eh, waaye. yaa ngi si jàmm. maa ngi ko suus nga togg tey ah. waaw. ana assiette bi sama bébé. dégguma li nga wax de. ma ne ci biir dëkk bi di taxawaalu nga koy wër muy jaar gauche yow ngay jaar droit ndekete ajjana ngi sa kanam marabu nooy bi la. donc bëgg ma ko déranger dama bëgg nga tibbal ko ah question bu banal arrêté di question bu banal kilifa kër gi moo ko moom. léegi lii tamit day dem. yàq sa yàq li ngay def baax baax na. kii yóbbu kii kii ñu yóbbul assiette. daa joxe li tax ñu ko yóbbul assiette. nii lay baaxee dangay ngay dugg xetu cuuraay jee xetu togg yi engagé la ngeen di felante di dugg di génn laa ilaha illa allah allahu akbar nii lépp ci bés bi waaw ñun Ngoone Njaay dañuy feetam lan moo xew mais feetuñu yàlla mi ma tiim xam na ni day ah. façon ngi lekk yi budul màggal bala muy gàmm. ay ay ay ay dëgg laay wax. ay yow am nga aaw tamit. waaw waaw bàyyi ma waay tamit nag <laughs> façon ngi lekk yi budul gàmm wala muy màggal. Eh. du ma ko gis sama kër. xam nga kër gi këru célibataire la sax. ah déedéet mooy yow tamit. <laughs> ba moo tax kon ba may def sama torson def samay jaagal jaagal. cat baaxul jël benn lal ko fii jël benn defal la fii. booy <laughs> jël benn gàddu. <laughs> boo lekkee ba sa gémmiñ takk ma moom. allahu akbar seetal lii rek yàlla nga gudd fan. barke yonent yàlla Muhammad lii. li nga bëgg danaa defal ni lii day may gën la benn mbir. waaw. Hmm? Mhm. ku ma la tere dee de. Ah. bis bu ma demee di la ñaani. Eh. imaan ba yeex. waaw ba matul ma ñaanal sama bopp. de waaw waaw loolu laa ci bëgg. Ah, waaye tamit waaye ah, yow mi tamit. kon léegi yow bébé lu muy añee. mu bokk ci ñi ñi ñi añ ñun ñëpp mu bokk ci ñoom. yàgg na fekk teral la ba taay. te ñoo ñëwaat waaw tey terlewul tey ki terle koo koy añ. ku terle tey mu xanaa bàyyi taf. Mm-hmm. da ngaa dégg ne ma damaa yor pension ah xamoo sa bopp xaaral añu bopp moo gën ngay laaj assiette. moom day ñëw xam boppam tuuti day xam lekkam. ok baax na. waaw d'accord amul benn problème léegi moom añ si wul fii ay yow tibaloo ko añ. kan laa tibal añ. benn mbay bàyyi tibaloo ko añ yow na génn añ ci nit ñi. ok d'accord. wala mbay da bëgg leneen. waaw d'accord. waaye yow tee nga caapaay nii rek du noppee ma caat ko. déedéet ma defal leen nii rek tegal la sa xel di daal. defal lu la neex. li ma la waxoon sànq lu waay wax ma dugg ci. waaw waaye lu waaye lu waay wax ma dugg ci réew mi. lu waay wax man mun nga cee dugg. maa la wax lu mel nii. seetal <laughs> ni muy soose sax neex <laughs> ah. bon appétit. merci waay. waaye nag ndax xam nga laa bëgg. Ah. maa bëgg nga jox ma sa guddi nga bañ a yàq sa énergie ma seexal la du la neex. <laughs> mag de bu fekkoon bu jooyee du am gàcce ma jooy <laughs> yéen a kontaan kenn mënu koy ree rek da nga cay jooyaale seetal lii. <laughs> saxal maa ko gëj sama yaay bi may nàmpal bi beroon nan ma gëj a saxal. Hmm? seetal lii rek ginaar gi noonu hmm. ginaar gi nga togg ma ginaari paftan hmm. booy sax muy seer boo xuma leen Ibou Ndir. Eh, s'il vous plaît doo leen puusante ah. wala. kaay toog fii kaay toog fii. ah Marina. soppeeku gaaw. eh eh toogal fii ba soppeeku. xajuma fi. kii waaw yow tamit naka bu kaani. fa tubaara kàll dama ni bu lëg lekkee xolom na ko gërëme cooy. kii mooy njaat. tey li ci kër gi yëpp bu dul woon ak moom làmbaay ñaaw moo génne ñaari junni jox ko buuru wàññi kooku li. kon tey nit bu defee lu baax dañ koy sant gërëm ko man nag maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm Marina ci li nga ñu defal tey. macha allah. Euh, jënd nañu ay boissons ak parce que joxoon naa la cinquante mille pour añ beeg yooyu noonu. lan. d'accord après ñu wax ci loolu. da ngay toog lii. je te donne dix mille non. nekk ngeen. <laughs> yow yaa yow. xaw ma ii xaw ma ah dama ne xaalis bi nga daaw génn ko laa la wax. Eh, wax ngay. yéen ay dëmm kii bu ma. foo yow xam nga ni yow. Eh, génnal xaalis bi. kii de jaram yéen ñëpp yéen ay saytaan nga yéen ñëpp yéen yem. kii la yow. boo ma laajee ma parce que watar laaj ma lay pooba. ngay laaj ma lay pooba. kan ngay pooba. koy ah. laaj sa yii ma mari naa nag. ah ay yow moom laajuma la yow waxuloo ma la. man xam nga du ma mari naa de. téere a koy ah baax na. kaay ewu ewu ewu. yow ma yow ma ay waay lii. bu ñëwee sama diggante kii dégg nga ma la wax yow. duggulu mën a sama dara nag yow. dafa agressif mën a sama dara yaa ma dégg. yow yow maa la ko jaar yow. en tout cas añ bi ngay añ ñii. waaw mais laajuma la dépense ko joxe. laajuma la la kii joxe dépense. damaa lu jënd ku joxe ah, dépense. yaa ngi yaa ngi yaa ngi lekk moom. moo joxe cinquante mille nga wax ni de. cinquante mille maa ngi a ma leen dimbalu ma leen dimbalu ñun am nañ mën am beneen añ boo xam ne moom ñuy jox sa xarit marina cinquante mille mu lekk boo demee yéen a ko séddoo kaay. lekk kaay kaay bi. de kaay eh, da lay damm da lay damm. bàyyi ma jàng da lay damm kaay bi da lay damm xam naa ne jàmm kaay rek. jàmm cinquante mille la joxe Ibou añ. waaw léegi dootuma fi ñëwati ah. waaw. <laughs> waaw en tout cas li ngay lekk moo ko joxe. tey <laughs> eh, du ngeen añ moo ko joxe de moom du ci lekk da des ak jàmm. daal di xat na bébé sama daal di xat na. j'en ai marre j'en ai ma claque man di xaw ma ko mbay def naa lu nekk pour intégrer ci gale bi def naa lu nekk pour ñu accepter sama couple man ak yow lu nekk maa ngi def sacrifice bu nekk foruma xaalis bi dañ koy liggéey bu ma ko joxee tamit c'est grâce à toi pour ñëpp accepter ma si kër gi mais je vois du n'importe quoi. vraiment du n'importe quoi. non non mais grave lii bu ko def problème man dinaa war a ne. ok kaay ma wax la mënatuma fi ñëw bëggatuma fi ñëw. boo bëggee nga fekk si ma mais fii moom doy na bëggatuma fi ñëw je veux plus. ah di ñëw nag de bébé. mënatuma ko. mënatuma ko. mënatoo ñëw fii. mënatuma ko dañ ci problème yeeg histoire yi nii. non problème yi si ñoom la parce que man maa ngi def lépp lu ma mën damay gis ay affaire sax yu ma neexul mais duma la ko wax mais dama ne comme que man maa bëgg man maa bëgg ñëw ñu nangul ma ba pare intégré si kër bi. moo tax may def le tout mais instant bii nag. Oh. mais yow ci kër gi kenn mënu la cee booleel kenn mënu la cee génn ndax ci nga. bokk non mais génne nañ ma ci. amul ku la mën gis ay wax yi sew ay xeelu ay façon bu nekk. yaay fii première. non mais ces trucs de fille là moi je suis pas mais ñoom li ñu lekk yaa ko yaa ko joxe. mais si. voilà mais gisuñu ko. waaw léegi nag fi mu toll nii dama bëgg yow nga des ci gàlle bi di fi ñëw chaque jour di daagu ci gàlle bi di fi def lu la neex. say des pièces non mën na ma ko na ma ko. doo fi ñëw def say deux gis naa façon bu nekk géré naa façon bu nekk mais y a trop de fii ak euh, dafa bëri ay wax yu sew bëri ay affaire non mais c'est dëkku jigéen ka il faut mu demee nii ak ni nga xam ne moom nga fiy ñëw di def ak yooyu léegi xam la laa bëgg bu subaa pour nga xam ne yow kel yow dara nga ci kër gi. ñëw ma non. waa déglu ma wax la. je peux pas. waa déglu la. je peux léegi bii pour nga xam ne yow maanaam dara nga ci kër bu subaa yaay ñëw togg añ. xool ku la neex mu añ ku la neexul du añ nga dugg sa waañ di daagu ma lay dëbbal. xam nga yaa ngi di la raxasal ndab loo bëgg xol yow xol ñoom en général tey loo nuyu ma ñoom tey bu ñuy togg ceeb tey yooyu ñuy def nga xam ni diggante inde bi ak ak cin li am na benn morceau bu ñu ciy kii da nga mës a gis ci kër ku ko fi def man maa la koy defal suba. <laughs> nga togg fi ceeb bu amul fenn. <laughs> mooy maa lay ñamal xorom. man ñam kat xorom la maa lay ñamal. yaa may dimbali maa lay defal lépp mënutoo ceeb jën. mën naa kay. Hmm. may ñamal rek xool ba xam saf naa am safu. déggal loolu. xam nga damay bañ a togg fii ñu nekk naan saf na na kii ak yooyu noonu. ah eh, mënoo. ok mënoo mais yooyu noonu daf may dafay metti sam en plus dafay daf may jox ay affaire daal. ah en tout cas kër gi nga ne da nga fi nga war a togg suba. ceebu jën laa bëgg. te dinaa koy tendance waa kër gi yëpp leen tey sama bébé mooy togg donc c'est-à-dire ceebu jën bu ah, mësta am yow moom nga fi war a def man ak yow ñoo koy togg ci waañ walaay ne man ak yow maa lay dëbbal maa lay yekkal maa lay sóoral maa lay ñamal xorom. yaa may affaire kii boobu. maa lay roof maa lay <laughs> ma bëgg la. <laughs> ñamal xorom tey moom mënu fi toog. Ah. ñu eh, ñibbi nii kon mais demee da ngay teel a hmm. dugg ci waañ bi ma teel laa defaral cin yeeg yooyu. waaw hmm. ah, demee kay moom. boo buggee balaa ñëw mu jógee marché man ngi dugg suba. <laughs> ba ñëwee fekk ma ngi la dugg bi ah. waaw xoolal xam nga eh, eh, laajuma la laajuma la am eh, noppil. bi nga demee maam xoolal kër gi fii nii fii laa nekk lii ko moo doon jox ñuy lekk mu ñu jox ñuy naan après par la suite ci la dem voyage xam dem ñu xuloo fii nii benn fara moo doon ko fii nii. yaa ngi dégg après ñu par la suite dañ ci am sa problème ñu ñaar moom da cee dem Maroc quoi mu ngi doog a jubóo nii léegi lañ jubóo parce que. léegi man maa ko laaj Marina moo ne ma bi mu lay gunge aéroport gis na lii que muy. damay laaj ndax li ngay wax ni man maa la ko laaj sama yoon nekkul si biir xanaa laa bëgg nga xam ko Ibou Ndir à part de maintenant loxoom bu la la te laajuma la laajuma la. gis naa mu koy mbéy laajuma la wax dama ni la à part de maintenant Ibou Ndir bu loxoom laa la tee Marina yéen ñaa ñëpp laay bokk rey leen yow loolu bu ma xëyee war nga ma gëm yow. xam naa man kay comprendre naa. boo du xam nga moom bu baax yow. xam naa man kay xam naa. fa laa yem ak yow. kay comprendre naa bu baax. fan nga jëm léegi. fenn toogal. ah mu bëggee taxaw la. toogal moom ak géej. da ngaa tëdd dellu si. waaw eh, yow dama la waroon si néeg bi sax. Hmm. ah. mu yow loolu gis ya sama duma te maa toxu eh jugal yow mari naa man sama fulla suñu fulla beeg fayda bi may incarné si kër gi mari naa kër gi kenn yàbbu ma mari benn sagaru soixante mille francs tax kii di la mbaj fii ñii di la ngawte ngawte si kër gi yow mari naa lan la yow mari yow lan mooy sa problème léegi laa génne néegu ma yekk naa ko keteme ndax yow bet eh, laajuma la rusloo nga mën a tey ndax damaa bëgg su may wax ñii duñ ma am dara luñ may wax Marina nga jël dépense su kër gi waxaguma yow cent mille francs Marie fu mu la fekk fa la lay bari yow Marie lan la. dajale bëgg a dem Maroc rek. waaw yow riir nga dégg mm, yow yow yow yow lan moo la da. dajale rek yow fan nga demagul yow. dajale rek non fa fan nga demagul. waaye fu damay laajte fan nga demagul. dem dem du doy. dem ba tax nga jaay sa ngor si cent mille francs Ibou Ndim nga xamante ne lu mu yëg mu siiw Ibou Ndim di am osé wu di la laal ak ak loxoom. may naa ko ci ñaari junni. ngay lan. may naa ko ci ñaar feeñul ndax waxoo. yow bu fekkee ne may nga ko ñaari junni feeñul te yow nag njikko bi nga bëgg am. ni waaw bu ñëpp seen làmmiñ nii teg ma ko nan laay waxee damay assumé. adduna léegi ne ah da nga assumé. ay ma assumé rek garaawul comme maa ko jëloon bu subaatee bu indee saa dama ko jëlaat de nañ ma rey. waaw man damay bëgg wax kii ki nga xam na wa. soo bëggee ma may la ci. temps yi moom ay ay afro bi jaat la wala ma nu mu demee daañu waajal sa bopp de ay jinjeer rek ay limon ak lu ne ngay defar di ko boole di ko naan. da yaakaar ni muy naan li jënd te yow ah, sama yow astafurlaa sax. <laughs> yow nit ah. et loolu yow ah. loolu. il faut ñu wax ci de. Ibou Ndim. waaw ah. man bu dee benn fan sax maa la ko magee. waaw. sa eh. ma bëgg nga régler. Marie bu ma teg gàcce ci kër gi. yow xam nga ne man du ma la teg gàcce xam na lan laa def man ñii dañuy bëgg di dund ci kaw nit ñi te man maa bëgg di dund seen kaw loolu la rek mais du leneen. hypocrisie bi ñi nekkee nga wala seen leen bëgg. pas hypocrisie man dama leen def xam nga la ngeen ko nëbb man nëbbuma ko dama koy fësal des fois nag damay cóolle rek loolu la set rek. set na bu yàgg li ma kaw après naa si jox. va loolu kay guddi loolu kay bi biti la fanaan. naa ma ci jox doo laal dara. kon doo laal ah. kon doo laal. ma est-ce que xam nga ne yow. damaa yor ko bokk ak yow li ngay déclaré nii maa la gën a gën laa gore tax ma wax la 10 minutes ma jël ci Ibou Ndim. da nga gore nag déglu ma rek. goreel ba. man dangaa war a jox mais yow tamit danga ma jox noonu la rek. ma ne li fi nekk ñu war ko séddoo bari na de tey ko. amul solo da ngaa gore. amul solo. àdduna amul solo. est-ce xam ngeen ne kii ngeen yaakaar dafa yor waaw mais na na def loolu rek lii que moom nay génne bon kanam bi nga xamante ne daa yoru bis bu ma xamee ne yoru moom balaa kenn di ko dégg. boobu ngeen xam ne maa leen dinaa fi wut tànn biir boo xamante ne bii ci biir kër gi. est-ce que xam nga ne boo wootee biir sama fecc la la ko. man nga loolu la di. ah man naa ci biir boobu. ju bul waa juguñ dem juguñ dem. gën a gën tey tey moom dootul kër gi yoru nga yoru la juróom sa taal bi nekk. góor na góor na yàqul dëru bay xam nga ni naa naa naa. <laughs> naa tax nga def sàmmul ñëwaat yow. <laughs> mën naa ci biir boor. Marie solo daal lay gërëm de. jiitu ma jiitu ma jiitu. eh solo daal la di dem. góor dama guy ndim de. day yàq dara wax ko moom moom day wax lu ñaaw rek moom bu ñaaw rek lay wax. léegi nag dara dañoo war la kenn. <laughs> ku ñuy wooyaa. Ibou Ndi. <laughs> waaye ñii andi fii nag réer ko de na ana saa daal yi.